waaw waajal bu simple rek mooy d' abord ci ñaari contexte ñun lañ koy waajale d' abord le président de la république qui vient nous rendre ñun en tant qu' institution ñun ay maire la ñu euh, ay institution de la république lañu d' abord droit la pour ñu accueillir ko euh, buy ñëw cees am ay décision majeure euh, xaaroon nañ ko ci affaire cheminots yi alhamdulilah c' est réglé mooy le problème des redevances xaaroon nañ ko ci relance chemin de fer te gis nañu ni recevoir na fan yële suma juumul ay indien pour relance semaine fin parce que promesse la woon xaar nañ ko tamit ci problème mu mbuurkat bi man principalement comme suma commune la nekk xaar naa ko ñu jël ci ay décision yu sage mooy d'abord ñi ñu fa jàpp ñu nekk ay prisonniers man bokk bokk na ci li ma bëgg mooy ñu wax ak président de la République pour ñu libérer leen parce que ay xale lañu ñenn ñi ay fonctionnaires lañu même bu dee erreur la man en tant que maire nekk institution bi nekk mandat kii bi jéggalu lay def surtout ñi raam au niveau du président de pour que lépp lu ñu mën ci njégal ñu def ko ñoo ñu dem retrouver seen famille xaar nañ ko tamit ci déclassement forêt bi parce que euh, suñu toogee ay at Thiès amul lotissement tey ñu dem ba nit ñi di fàq dëkk c'est parce que jàpp naa ni institution république ñoo deful seen liggéey parce que nit ñi dem duñ nekk ay kër di exploser xaar nañ ko tamit ci lu mel ne lii mu doon def ISEC mu nekk institut de formation xaar nañ ko ci financement wu jeunes yi ak femmes yi mais xaar nañ ko surtout ci quota emploi des jeunes je crois qu'en tant qu'institution ñun loolu lañ koy beneen bi nag muy ay instruction yu yi mooy ñun nous sommes dans un parti très discipliné président Idrissa nee na bu mag Macky munul am moom la mu daan am na am lu ko raw mais bu mu yées boo gisee ñu sonn ci bu doon ci beneen contexte ñun du ñu recevoir Macky sal parce que dafa nekk parti ñu nekk mais tey ñu nekk ci coalition mouvance présidentielle suñu président Idrissa wax nañ ko recevoir amuñu beneen institution bu dul def exécution ñu lay bàyyi Fallou Idrissa lañu su nee ñu nañ def lii ñun amuñu leneen luñ ciy xalaat on le ay conséquence positives ou négatives c'est pas notre problème on a reçu des instructions de notre patron Idrissa qui nous a demandé d'accueillir Macky dans les ci ci ay liesses on va faire plus que ce qu'il nous a demandé point barre pas autre chose. Ah, gis nga divergence bi lu simple la gis nga nii nga gis ci kaw garab yi nii ñuy taf man doo gis sama pancarte ci kaw garab. Parce qu'on a besoin d'une mobilisation. Et la mobilisation ne se fait pas sur les arbres. Faire 100 ou 150 pas quartier Carabi, ce n'est pas ce qui e important. Ce qui est important, c'est de faire sortir les populations. Maintenant, vous faites que vous êtes responsable, vous faites que vous êtes vraiment, vous, population, vous êtes carré, vous êtes dem fay ñu la génnel da nga dem tak sa pancarte alors que c'est pas ça tak sa pancarte mënoo gagner bureau de vote c'est pas important man doo gis sama pancarte ci kaw ci kaw garab j'en ai pas besoin on va mobiliser le on va sortir pour, uniquement dans ma commune pour les 7 000 à 10 000 personnes qui vont accueillir le président. Si tu fais la somme entre les trois communes, mais on aura plus de personnes dans la rue. Si les gens maintenant euh, de la coalition, euh, de l'APR et de les alliés, ils disent le maximum. Maintenant, la démonstration de force, c'est ça. Et les couleurs vont définir. Nous, nous sommes en orange, tout le monde donc loolu dañuy xaar tracer des instructions de Idrissa nous on les respecte à la lettre sinon man fii je fais cinq minutes et je m'en vais jot les gens m'attendent partout la commune est vraiment en fiesta donc ñu loolu vraiment la ñuy. de Idrissa Seck aujourd'hui? pour le moment nous on n'a pas besoin d'Idrissa xam nga tax parce que vraiment il est temps que les lieutenants d'Idrissa montrent qu'ils peuvent faire sortir les Thiessois sans Idrissa nekk fi et Lamine Diallo l'a réussi l'autre les élections passées nous avons battu campagne te Idrissa ñëw fi. tey encore ce sera une autre démonstration de force pour wane ne Idrissa ñi mu doon yar vraiment maintenant ils sont aguerris yi màgg nañu quoi et vraiment su fekkee dañuy xaar Idrissa ñëw pour ñu génnee population yi c'est c'est un échec Yankoba mënu fi nekk en tant que ministre de la République def un vécu important en politique Pape nekk fi nekk suñu grand frère Lamine Diallo nekk fi man ma nekk fi man ak Lamine ak Diatara ñoo ci tuuti la on a presque plus wootee les gens verront que som sommes utiles ou pas man loolu laa ci xaar quoi. mais c' est normal ils sont c' est des opposants c' est la république c' est des opposants on leur laisse s'opposer bon li ci des amul problème li ci am solo rek mooy vraiment ñun ñu def li ñuy def ñoom it ñu wax li ñuy wax mais bu mu am ay ay bu mu am ay animosité quoi sax jaru ko fi animosité damay wax du Idrissa du Macky Sall du Ousmane Sonko du keneen ku fi jar ni ñi di seen bopp. c'est des leaders politiques ils ont une base derrière dañuy liggéey pour ñoom mais quant à nous agresser entre nous pour les beaux de Macky ou autre je crois que jaru ko fi quoi